Hey, Fall mu sëñ Fallou Fall Mbawor. kuréelu sëti Cheikh Ibra la euh, di kuréel yoo xam ne ay sëti Cheikh Ibra ay sëtaan Cheikh Ibra ñoo ci nekk di kuréel goo xam ne bi mu juddoo yàggul waaye yoonu Cheikh Ibra moom moo mel noonu amul tànk ginnaaw tànk kanam la am moo tax tey gone yi ñëpp àndandoo sët yi sëtaat yi amul xaaj amul seen ñëpp taxaw ak jaayante ñi def seen alal ak seen doole lépp dem ba léegi ñi fi lañ fanaan benn yëpp xale yi ñoo ko ñoo xale lañ ci jëmm nag waaye euh, mag lañ ci jëf macha allah li lépp ñoom la jubluwaayam moom du leen lu du liggéey seen seen maam Cheikh Ibra rek ndax kër Cheikh Ibra moom daa yaatu ñu daal dañoo bëgg a liggéeyal seen maam Cheikh Ibra topp ci suñ kuréel yi fi bari ndax kuréel bi bari na fi waaye ñun ñëpp dañoo benn benn kuréel bi la rek kenn ku nekk yoonu yaatu yaatu goo xam ne ñun ñëpp dañu bokk rek kii jógee fii kii jógee fii ñu bokk liggéey bu pare ñooy bokk fuñu dajee dëgg yàlla ñun Baye Fall Baye Fall moom du tuuti rek war a xam li ñuy mën a liggéey seen beneen doomi jàng ko ci moo am na ay commission bari na commission yu bari comme ni comme comme kuréel yooyu yëpp rek na ay ay vice président ay trésorier secrétaire général bari na ay kuréel laa yoo xam ne social am na daal loo xam ne bari na yu bari juddoo na yu bari juddoo na ci waaw gën a góorgóorlu rek te xam ne li ñu wax rek liggéey bi waaw bi mi ngi fi jugu fi te nii ni liggéey sëñ Touba rek a fi des ak Cheikh Ibra moo fi des dara amatu fi képp koo xam ne liggéeyul si Cheikh Ibra liggéey sëñ Touba perte nga ñun daal ci lañ fas yéenoo di leen gën a soñu rek ñu gën a am fulla rek gën a takku gën a gën a gën a gën a jaayuwaat seen alal seen doole daal bu mu ko fekk lépp lu seen woote daal bu leen bu leen ci kenn mën kontaan rek ndax pour euh, ñu ci bari samay samay doom lañ ak samay rakk ñoo ci nekk ak samay doom ak samay mag bariwuñ ci sax waaye dañ maa woo ne ma ah yow kat dañoo dañ laa bëggoon a dénk comme gis nañ ne damay yëngu ci wàllum togg ñu dénk ma ko wax dëgg yàlla lu am naa ci satisfaction bu baax kontaan naa si baax sama xol sedd na si ndax kaañ liggéey moom ku la ko wax mënoo ko fay dañ maa war a ba kaay nga ñu liggéey Sëñ Ibra Fall loolu maa leen sant bu baax a baax donte sax fekkoon nañu ca daayira ba ñu ne ca waaye lépp benn la moo tax ñu ñëw fi jàppaleen si ñu nekk la war a ak confiance bi ñu am ci ñun kontaan nañ si bu baax amuñu si sago daal kontaan nañ vraiment dañoo sonn ba pare mais dañoo kontaan ndigal rek diglu bu sañoon sëñ bi chaque jour mu jox ñu ndigal ndax ndigal rek fi bàyyee bu waaw loolu suñu xasida yi la waaye lépp benn la waaye ñun moom tey mooy suñu bis moom Baye Fall moom sikar mooy mooy wàlla moo tax mu jox ñu tey mais bu sañoon aussi bii di ñëw sax ñun lay doonaat la ñuy déglu parce que ay ndigal lañ waaw moo tax ndigal rek la ñuy déglu euh, sëriñ bi ginnaaw bu ñu leen ñu ngi lay ziar tey ci bis bi li nga xam ne ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha daf ko santaane moom euh, 12 wala journée boo xam ne dañuy xëy di sikar 8 heures bëgg teel ngeen bokk ci kuréel wala daayira euh, bi nga xam ne mooy fondation bi lëkkale ci taal maam Cheikh Ibrahima Fall mën naa ne tey ngeen amal liggéey bu am solo fii ci bis bi nga xam ne moom la ko tedd ki santaane ginnaaw bi ñu ngi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñooñu ñëpp ñu ngi bokk taalibe yi di am mbokk mu yaatu di ñaanal Cheikh Modou Moustapha borom yaatoo ko fi lool ci yéen dafa ñaanal baax it borom yàggal ko ko ba naal yi nga xam ne moom la naal maam ñu baax ci lay baal saa borom dogal mu àggale ko ci sagoom ci wala boobu mu ko fu kawe njot koo mu saa seen yoon yi ci am nañ si yaakaar bu baax nag ndax li tax ñu am si yaakaar suñu Muntaxa mooy sëtub Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo njëkk a xalifa biir kër Sëriñ Tuubaa résidence Cheikh Amadou Bamba biñ toogee xalifaat sëñ Aliou Modou Mbenda mooy sëriñ Cheikh Ibra Fall bu njëkk a toogee xalifa résidence Cheikh Ibrahima Fall mu jërëjëf ma kon loolu rek yaakaar dafa dafa am foofu ñu kawe lii it mu doon loo xam ne daaw lañ ko njëkk a def dañ ko defee daaw it mu gis ñu gisoon njëriñ li mu jural réew mi ndax suñu doxaa moom li yitte mooy réew mi yëpp am njëriñ am jàmm moo tax daaw bu ko defee ren jii mu dellu mu dellusiwaat mu ngi waat na ko defaat te dafa ko noonee moo ko defoon daaw. ñu ko bu ko defee nag ñun ñu xam ni comme ñu nit ay njabootu Cheikh Ibra Fall lañ te yàlla dogal na ñu taxawal benn daayira tudd ko yàlla dogal ñu dajaloo ñun ñëpp boolem sëti Cheikh Ibra fu Cheikh Ibra am sët rek muy ahlu ahlu Mbàkke muy ahlu Fall Jóob muy ahlu Njaay mboolem fu Cheikh am sët rek ñu ñoo booloo tey jii di def ay berne togg ay añ def ay ay wala togg ay ay njogonaal ay ay reer di xëy defar ay ndékki te mboolem lu lu lu war ci lu sedd muy ndox wala muy boisson wala muy ay si naturel mboolem loo xam ne rek maam bis bi tudd yàlla nañu ko aajowoo loolu tey dañoo rajaloo fii jël suñu dërëm suñu ñaar dërëm boole ko ngir liggéeyal ko. Cheikh Ibrahima Fall la jox Baye Fall yi euh, suñu nag dafa doon koo xam ne nii mu mel wala nii muy doxee da koo doon sa waajuram mu Cheikh Mouhamadou Bachir ndax Cheikh Mouhamadou Bachir moo waxoon suñu daaw waxmaan loo moo ko waxoon lii mu waxaat ko ci Minanul Xadim muy kuntu ada ada su ma waxoo yama fi xiyaam yi fa sàkkal xaraa iba fa kuul naa loxo maasaka ila min karamati cheikhina alxadija mu wax ne dafa am benn bis ma seete woon sëñ Ousmane Lo ñu nga seetee suñu naam bi ko nettali tumuraan bi mu def da suñu a joxoon digal naa fi laa jàng alxuraan def ko ñaar rakk yi mais bi may ma yéemu suñu naam ma anal fanal yow ma naa si naa si xel wala ak vitrine ko man de am naa ñaar fukki at te du meeg ab coono ko isa xamul fi naa kat alxuraan su ma alxuraan yëpp ñaar a daa koy def suñu bés bu naan bi may yéemu suñu bés dañu daan a bul yéemu ci loolu wala su lii bul ma yéem ci lii may ma nga yéem Cheikh a Fall ci la ñuy def Cheikh Ibrahima Fall nag tudd yàlla fépp fu ñu ak foo mën a nekk soxal nga dem Cheikh Ibrahima Fall te suñu tubaab moo ko ni yàqulu li xay si aqulu laahu tafsir laa ilaha illa allah loolu nag ba ko suñu borom joxee ba nga ko xool li Cheikh Ibrahima rek moo ko mën a yor doxal ko woowu doxul bii moo taxoon mu mboolem koo xam ne dafa ànd dama laa gestu ma gis ma sànni moo ko attan ma xool dund Cheikh Rafaal mu ne yàmm nag ma sànni ko ca loolu laa ilaha illallah faal laa faal nag Cheikh Rafaal ba mu koy wax da ko waxoon ngir delloo ak ko sëñ Tuubaa mooy laa ilaha illallah fabal waaw faal ak fabal benn la léegi nag loolu mun nañ ba jamono nag njukkal loolee ñëwaat ba feeñaat Cheikh Mouhamadou Mountakha si Mountakha wan nañu mooy dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa mu jëlaat tur yàlla moom duggalaat ko Baye Fall Baye Fall ñu si Basiru bu ko defee duggalaat ko Cheikh Mamadou Moustapha kon ñoo ngi ñaan mu yàgg fi loolu déwén. mu mel ne kuréel gi ni ko waxee euh, muy daayira boo xam dafa lëkkale c'est-à-dire maam Cheikh Ibrahima Fall naam si ka bi ko sosee naam xam ne yàggul ak ay naalam ay jubluwaayam loo xam ne kuréel bi fas yéene ko indi teg ngir jàngale mi nga xam moom maam Cheikh a Fall ndax bu njëkk dañu doon wax euh, Baye Fall jàngul fii moom ku fi ñoo xam ne. sëtu sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall léegi ay ay craag lañ ñun am nañu xam ne am nañu xam nañu waaw xam nga daayira bi day daayira boo xam ne euh, dafa am loo lu bëree bëri loo xam ne dafa daf noo rëccoon ñun ñu doon ndaw yi nga xam ne dañ ko fas yéene andi ndax ndakaaru gii nga xam ne fa ñëpp jëm muy capital mosoo faa ne kër Cheikh la Fall te kër ku ne am na fa ñun na dañoo doon ñoo xam ne yoo bëgg liggéeyal Cheikh la Fall ba defal ko kër Ndakaaru loolu dafa laaj pas-pas bu mat sëkk dafa laaj yitte bu mat sëkk waaye dafa laaj xam-xam waaye dafa laaj nag ak nite ndax yooyu yëpp ak taalibe ci biir taalibe la nekk nit boo amee taalibe yooyu yëpp da koy mën a am waaye su mu taalibe nag yooyu da koy yàlla dogal ñoom ñuy ay ndaw di borom a xelu euh, ñëw dugg ci biir daara ji ngir am na daara ju fi nekkoon ñu koy woo jës murit mu doon liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall waaye kër Cheikh Ibrahima ni mu toll su fekkee ñun ñëpp dañoo àndandoo doon wenn say dina mën a nekk waaye bu ñu àndandoo ñu benn benn daayira rek la ñu doon kon day ma ne doole kër Cheikh Ibrahima Fall du feeñ ndax suñu Aliou Fall Mbawar moo waxoon suñu mërëminta ni ko ndax boo demoon kër. suñu Abdou Sakor doo laaj ne ndax fa la Cheikh Fall nekk mu ne ko ah kay mu ne ko boo demoon kër Serigne Assane dana fa Cheikh Fall nekk mu ne ko ah kay mu ne ko boo demoon kër sa baay Ablaye Fall dana fa Cheikh Fall nekk mu ne ko ah kay mu ne ko boo demoon kër suñu Cheikh Fall Baye Góor doo ne fa la Cheikh Fall nekk mu ne ko ah kay mu ne ko Cheikh Fall bi nekk si bi mu wut suñ Bamba dafa dajale la bu bëri léeg-léeg li ko wutalee nit ñi mooy ni mu tasee këram këram di dox ku wutee sa kër sa kër tas waaye da du réeroo ndax foo ñu fekk kenn ay toog ci kaw ñëpp toog ci suuf mën nañoo nekk fële ku la doxalaay bu ñu dajee Baye Fall yëpp benn say la ñu doon loolee nag nga xam ne moo waral kër suñ diw di dox kër suñ diw dox mooy doole Cheikh Ibra loolu moo daal gis mu nekk fi daara yi ak faadu sëñ Cheikh Ibrahima Fall nekk fi te yéen daal dañuy kenn ku ci nag mission nga yor boo xam ne da nga ko a dox mission boobu ngay dox nag dafa am luy tax mu réussir am luy tax mu échec li tax mu réussir mooy fit fulla jom ngor loolu mooy tax mu réussir li tax nag mu échec mooy yaafus te loolu yàlla yàlla yàlla yàlla mu doon ñu ànd seeg suñuy kilifa ñu sant Mbàkke ànd seeg suñuy kilifa ñu sant Fall ànd sa suñuy rakk mboolem sa Cheikh Ibrahima Fall euh, ki nga xam ne moom lañ jiital ci daayira bi ñu ngi koy ñaanal yan bi oyof toll si moom muy suñu Ahmada Diop suñu suñu Cafal Baye Diop suñu suñu Naa Fall mi doomu suñu mortal la doomu suñu mooy di kilifa di waajur di maam di mag di lépp ci biir daara ji waaw ak mboolem ñoom Cheikh Blaat Faye ak ñëpp kenn ku si ne ku mel ne Cheikh Blaat Faye tey am na yeneen imaam yu xamante moom waaye li ko gën a ñor moom mooy kër maam loolu moo mu laxasaayu boo dikkee ci wàññi yi nag buy seen mu sol ab ab faxayaam jiital lu weex sol solum maamam di baagante lépp loo loolu mooy sàmm sa ndono nit mën ngaa nekk ci bi lu ne nga tëralee def ko waaye boo ñëwee sa kër maam nag ku fekk war naa wax xam ne sa maam jàngale woon mooy lan loolu rek moo ñu boole fii tey jii kii nekk saa wet nii doom suñu Idaali Fall la mu suñu Moussa Fall muy suñu maam Cheikh féete fa Ndakaaru moom it bokk ci aksaar bi di ko doxal maam Cheikh lam Cheikh Laye ñoom ñëpp dara ñuul la rek lu liggéey seen maam mbooleem koo fi gis rek na nga xam sëtu Cheikh Ibrahima Fall mbooleem sëtu Cheikh Ibrahima Fall yëpp bokk nañ ci affaire bi te dañu fi yow di jug rek gone nag bu ñu soog a jug mën naa raam bu raamee bu jugee day daanu ñun si jug daan lañ toll defaguñ dara da yow sa yëmu jee danaan piccet di daw te buñu fa accès yow da nga xam ne lii avancé kon ñoo ngi ñaan Euh, télé bi nga xam ne moom moom lañ moom lañ ko joxoon moom mooy ndam. Sen TV ITV ak ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal sa bi gën leen yëkkati yéen ñiit yàgg nañ leen a xam ci dëkk bi ngeen ay taalibe doon doon ba fas nga xam ne sa Tuubaa ji njëkk ja waaye mu nga xam ci yow lenn loo xam te ni danaa acam kon ngi leen di ñaanal baax sa borom ubbi leen te ubbiwaale ñu sa borom dafa leen ay ngënal yu sax dàkk barke suñu Tuubaa Cheikh Fall bokk suñu Cheikh Abdoul Ahad Faye ñoo ngi ziar bu baax a baax di waxaat jërëjëf Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rahma Fall eh, dañuy am mbégte lool ci boo ñu laajee loolu ndax ñun tey ji fii ngeen ñu fekk lii mooy dëgg lii moo njëkk moo njëkk ci ñun te mooy mujj ci ñun muy liggéeyal sëriñ Touba ndax sànq rek daa mbokk mu wax la mu ne ñun ñun Baye Fall ba ba yàlla ba ñu yàlla di sàkk si liggéeyal Serigne Touba taxoon kon boo ñu fekkee ci kër Serigne Touba ñuy liggéeyal ñuy ñuy liggéeyal Serigne Touba. kon loolu dañ ci am tawféex am ci am ci contentement bu bëri fii nga ñëwee tamit mu di keesu Serigne Cheikh Assou Fall Mbacke moom Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Touba ci biir kër Serigne Bassirou Mbacke waa Ahfadu Cheikh Ibrahima Fall muy fondation sëti Cheikh Ibrahima Fall dal fi di fi toppatoo depuis bërki démb ba démb ba tey jii bis bi ñoo ngi ci fii di fi waajal berne yi berne yi comme ni ngeen ko jëlee mu jëm ci ay berne yu yaatu yu ñu def. jëmale ko ci mbokk taalib yi fi ñëw jëmale ko ci sikarkat yi si jëmale ko ci ñëpp koo xam ne rek ittiwoo nga ko benn yi fekk na ne fa fa nga nekk ñu am nag ay ay ay sëti Cheikh yoo xam ne sët gin sët deret deret gin am Cheikh Ibrahima Fall mbubbawuñu ko doxawuñu ko fii danoo laxasoo danoo danoo danoo danoo danoo danoo laxasu def de benn benn say takk seen ndigg mu doon mu doon benn liggéeyal seen maam ju baax ja jébbal ko Serigne Touba fondation bi moom ban ko sosee ba léegi danoo sosoo man ko sosay bay lenn rek mooy sunu initiative lenn rek mooy sunu mooy sunu gis-gis di sunu mbébét mooy yitti boole njaboot Cheikh Ibrahima Fall ak képp ak foo ci mën a bokke mu doon benn say ngir ñu mën a xàccandoo dóorandoo sur sur plusieurs plans nag loolu rek loolu rek moo ñu ini moo initié waaye tamit euh, euh, wàllum wàllum budget bi lenn rek la mooy que ñun bi ñu sosee kuréel gi dañ ne lenn lañ ci xaar mooy ndigal gi bawoo ko kër Sëñ Touba ñëw kër Cheikh ak ndigal gu mënti doon ak jamono ju mënti doon ak fu mu ñu mën fekk ndigal jooj dañ ciy tàbbi ak nuñ ci mën a tàbbee te dañu ci ñaan suñu borom kàttan nañu ci doolejey Cheikh Ibrahima Fall doolejey Serigne Touba heure bu ndigal di jógee kër Serigne Touba di ñëw kër Cheikh Ibrahima buy bu ñu mu fekk ñu anam boo xam ne dana mën a gën a jëfe ndigal lool loolu nag mooy mooy ahfadu Cheikh Ibrahima Fall lii nag nga gis ci berne amul cotisation amul dara ay mbokk taalibee dajaloo ñu nekk sët Cheikh Ibrahima yëpp ñu dajaloo kenn ku ne ne sasoo naa nangam sasoo googu ñu sasoo nangam nag moo jagal yëf yi ñii sasoo ay gàtt ñii sasoo ay ay ak saaku ceeb ñii sasoo kafe gi ñii sasoo ay ay wàllu lu jëm ci wàllum collation lu set léegi yëpp am ñu ko sasoo loolu loolu loolu lan dajale jébbalaat ko sëriñ bi jëlaat nag lu parewaat nag tey jii tey jii bu ndigal li daanoo sëriñ Mountakha joxewaat beneen ndigal ñu dab ñu subaak jàmm ñu tàbbiwaat ndigal lool ah, oh, am na am na ay projet yu bëree bëree bëri waaye nag ñun ban sosoo yàggut te da ngeen a gis ne da ngeen mel ne kuréel gi ba mu sosoo am nay at te ba ba mu sosoo yàggul waaye nag am nañuy naal yu bëree bëri xam naa ne yeneen jotaay dana gën a yaatu ñu ñu ñu woo leen planifier leen wax na leen programme sàng am nag waaye nag bu ñu ci lii jot nañu ndigal ñun kuréel gi jot na ndigal ci sëriñ Amdi Modou Mbengue na xalif général des Baye Fall ndigal loo xam ne mooy kër Cheikh Ibrahima Fall gee janatu ñu ñu sam fa reboisement muy muy muy sam fa ay garab ngir kë ñu mën faa indi indi fa ay ker indi fay garab loolee tamit kuréel gi jox na leen ndigal te ndigal lii lañ doon xaar bu weesoo ñu mën a tàbbi ci ndigal lool bu weesoo loole ndigal loolu tamit ñoo ngi ci ba tey te ndigal li sëriñ bi joxe muy war may dëkk bi war may dëkk bi nag fondation bi am na am na nu mu ci bëggee dugge na mu ci bëgg a dugge rek d'une manière très stratégique d'une manière très moderne ak ci lu gën a loo xam ne daal dina gën a am ponk boo xam ne ñu jëm lu laal wala communication bëgg nañ cee tàbbi lenn daal loolu moom question bu ma bu ma neex la te damay damay damay dama leen dama leen ñaax yéen ñii yéen ñii di ci journaliste ngeen di ko gën di laaj parce que Cheikh Ibra yéen yéen a war a xamal monde entier ne amul ay cancre wala li ñuy gis ci anam melokaanu Baye Fall boo ñu gisee ñun ñii ñëpp ay deret Cheikh Ibrahima Fall moom lañ yore boo xoolee sunu melokaan da nga xam ne daray manqué daray wayde daray dof daray gainsement daray mandikat nekkul ci ñun te Cheikh Ibra par a tegoon tànk te Cheikh Ibra moom kuy yeewu kuy yeewu ba yegg ci moom dëpp te loolu nag moo ngi ci ñun ñi ñëpp ndax ñi fi taxaw ñëpp kenn du jaay ñii buñ jàngee buñ jàng gannaaw buñ jógee ci daara ja doona dem jàngu ji ak xam ñii gannaaw buñ jógee ci daara ja danoo demoon ca nasaraan sa ñun ñii ñun ñi dem danoo dem ca nasaraan sa kon Cheikh Ibra am na lépp te Cheikh Ibra laataa bi fiy dund nekkinam dafa am lu mu jàngale loo xam ne jàpp naa ne réew mi bu ñu ko jariñoo dese nañ ko jariñoo mais suñ ko jariñoo dina dina yóbbu réew mi fu bëree bëri si le plan sur le plan économique culturel agriculture agricole élevage pêche ak ak wàllu social ak mystique communication lépp Cheikh ak diplomatie Cheikh Ibra dafay def lu am lu am solo loolu nag mooy suñu mbébét suñu mbébét mooy lu ñu incarné mooy nous incarnons la modernité nous incarnons maanaam révolution ak tamit modernité yoonu Baye Fall changé ni ko conception bi bi Sénégalais yi ak xam xam ci yoonu Baye Fall Baye Fall du koy takk përëm du koy bënn noppam du koy bënn ay ay bakkanam du koy takk ay përëm loolu am na ñu ko ñu ko wala waaye kii kër Cheikh Ibra moom heure boo leen bawoo koo Dakar wala bawoo ko fenn boo leen ñëwee kër Cheikh Ibra da ngeen fekk ki fi toogal Cheikh Ibra da ngeen ko loolu mooy Baye Fall leneen lu leen wax ci Baye Fall lii sëti Cheikh Ibra yi ñoo waaye sëtu Cheikh Ibra maanaam képp ku doon yoonu képp ku nekk murit sëtu Cheikh Ibra ndax bala ngaa nekk murit da nga doon Baye Fall ndax Baye Fall mooy yoon Lamp Fall baabu murit la tudde ba mooy yoon wa jëm te yàlla ba yoon wa jëm sëñ Tuubaa bala ngaa jëriñoo sëñ Tuubaa nag faaw nga jëriñ faaw nga jaar Cheikh Ibra faaw nga doon Baye Fall kon nag loolu moo tax loolu moo tax ñoo ngi tàllal loxo ñëpp mbokk yi ak taalib yi am na jàmm am na ñoo xam ne duñu ay jullit man am na ñu bëri ñu fi xam ils sont pas des tey dañoo bëgg Cheikh Ibrahima Fall ñooñu tamit dañ tàbb ci kuréel gii dañu xam ne ci leen bopp am nan nag mbokk yi ñii ma bokkal Cheikh Ibrahima Fall leen rek la may soññee ndigal lii tàbbi si nañ ci nañ ci ñaan liñ ci def te sant ci ngërëmu Serigne Touba te Serigne Mountakha mii ñu ko digal de dañoo bëgg a dimbali ndax dimbali weesuwut nga yenn ci barab di tudd baatu laa ilaaha illallaah ba ngoon jot ak berna loolu la buñ ci jógee ab soññee la war a doon ci yoon gën a takkaat laxasaay xam ne li des suñu karam moo ëpp moo ëpp doole fuuf dana war a saswaar buñ jàllee ci la na ko weesu fàtte ko tam gën a boole laxasaay takkaat laxasaay waaja yenn ndigal jërëjëf ta Abdou Fatah Mbacké laa tudd dëkk Touba gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa a sant Serigne Touba Xaadimu Rasuulillaahi delloo njukkal ak Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiin di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom guddaloo noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda kuréel gii nag di Ahfadu Cheikh Ibrahima Fall li taxawu ni bi nga yi nga xam ne dañoo fas yéene jàppalante ci yitte ak taalibe euh, li nga xam ne nag moo moo moo tax a jóg kuréel bi muy ni ñu ko waxee rek la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon wax ne Touba li xabdin muridin saadixin lahum bi mooy fas liggéey eh, jaamu yàlla fas yéene sàkk xam-xam bu wér a wér tey fanu ci ci waxtu wu mu loolu rek mooy moo tax a kuréel bi yaatal lépp lu baax rek te Cheikh Ibrahima mooy mboolem ku ni Cheikh Ibrahima Fall di nga ni ku nangoo liggéey la te daaw ko yàq foofu lañ fas yéene teg suñu mooy mboolem lu baax rek ci wàllu xam-xam wàllu liggéey wàllu nangoo joxe fasañ ci yéen a ànd waaleykum salaam wa rahmatullah